sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre mi nga xam ne moo yor kàddu yoonu murit yable na ci dimanche ji dëppoog le 18 juillet 2021 ci Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke Bachir xalif général des Mourides doon ko yóbbul ay xaru tabaski ñu xayma ko ci ñaar fukki xar ak juróom-ñett di xar yu mag yoo xamante ni yu mucc ayib la ñu ñëw jëbal ko sëriñ bi sëriñ bi boole leen ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif mi nga xam ne mooy jëwrinam mu nemmeeku ji xar yooyu ginnaaw bi sax am nay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko santaat bu baax sëriñ Bassirou Mbacke Abdou Khadre ci taxawaayam ak ni nga xam ne noonu lay jàppale sëriñ bi ci liggéey bi ak taalibee gi nga xam ne doon na ko ba sëriñ bi lépp loo xam ne yëkkati ko rek mu ne ci ak moom.